allo bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi man la Marietou fii ci Saveurs Planétaires incha allah fas yéene dellusiwaat tey jii ci kàttanu yàlla euh, ba tey ñu ngi ci suñu opération euh, opération iftar macha allah euh, pour Ramadan ndog li ñu ngi ñaan yàlla may ñu ñu fekk ko total ko lépp luñ ko ci jàmm mu nangul ñu ko macha allah li ñu gis ni épinard la gis ngeen dama ko jël dagg ko épinard moo nekk ni dañu fas yéene defar. Euh, fattaaya fattaaya suñu mbokk arab yi dañ koy defar lu baree bari macha allah boo xamante ne ak épinard lañ koy defaree bokkul ak bu yàpp bi incha allahu maa leen dikk fattaayu meer Diop pat bi am pataat bi dina ñëw incha allah fas nañ ko yéene euh, beneen fattaaya bi naar naari di defar ak viande hachée tamit incha allah dina ñëw mais tey euh, lii la ñu indi gum bu épinard bi donc gis ngeen fi ingrédients yi lay àndal gis ngeen ko nii ñoom lii la ñu woowee fattaaye <laughs> fii am na ñu koy woowee euh, spinach pie donc euh, mu ngi nii donc li ñu gis ni persil la persil bu bari moom laa tucc tuccal na le haché ko fii ñu gis nii suñu euh, tuuti oignon vert mais facultatif la oignon vert bi it's optional completely optional ku bëgg def ko ku ko bëggul na bàyyi lii ñu gis ni tuuti menthe la naana xam ngeen noo leen def ma ne ko ci réew man sànni ci samay salañ salañ li ñu gis ni suñu tomate fraîche la dañu xolli der bi ba pare dagg ko ay en petit dé cube yu ndaw ndaw macha allah ak fii suñu soble voilà donc euh, suñu recette bi incha allah dañuy soxla lemon mu ngi ni citron dañuy ñëw nal ko fii ci yuubu yaaba yi moom it mu ànd foofu telli telli dañuy soxla sumac sumac mi ngi nii euh, arab yi ñoo koy euh, am ndax si negal ñu ne ko ci duut fa xaw a forox tuuti waaye neex la def dey parfumé moom la moom la ñuy wis ci shawarma yi voilà mais tey duma defar pattu fattaay bi sam bopp lii laa ko fasiyene defare muy pat feuilleté bu ma jënd ba pare bu ñu defar ba pare gis nga dagg ko ni ay carré voilà donc euh, pat feuilleté baa ngi nii ku mu neex mën nga jël euh, defar beneen pattu fattaay bi mais incha allah kooku it dinañ leen ko defal bu ci yàlla àndee voilà ñu ngi fi ak suñu sel gis ngeen ko ni xorom si voilà léegi li ñuy def dañuy zëq rek li ñuy safalee rek ci xorom si bàcc bàccal ko nii ci kaw euh, suñu xolo boxome ko gis ngeen ci bi gis nga may ko ay boxam boxami voilà mu boxamoo bu ko defee nag mu daal di ñëw moom it wàll si coow li fii sa mbaxloo bi su ko defee ñu laal ci huile d'olive bàl ma huile d'olive bi ci coow li la bokk di <laughs> zayt zaytuun mi ngi nii tuuti rek raay mbelle ko ci voilà c'est bon mu ngi noonu daal di fab këf ki tey moom dama fas yéene yekkal sama doomi bopp macha allah ñu naan ko Madina Anne ma dina an sama doom ju bax jooju fas yéene yekkal sam benn doomu bàjjen bo xamante momit sagaru njaam ba legi joxumako ko nday mbayeng jàng ko nday mbayeng <laughs> na la jooba biir saveur planétaire fek sagaru ni ñew bala ma de nga nan man ma la wara jox sagaru njaam voilà donc gis ngeen suñu yubbu yaaba yi ay eh, mango jël mang bi nal ko ci voilà na ci sama sagaru jaam ni ñew borom karo mo couture sacré cœur boy bon nak manyawal ma ñawal dara de wala léegi saveur planétaire fi lay tok ne len mi ngi du joxe sagaru ndiam te ñaw yu rafet di ngeen dégg sénégal yépp mo koy ñaw <laughs> aywa macha allah yalla yalla barké li mo ngok suko défé gis ngeen suñu yubu yaaba yi moom la ñuy téye jaxase bien bon voilà gis ngeen len ni lépp lañuy jaxassé du am ah. bi du am épinard bi lay am ak yubu yi ci def mais dafa neex ba melni yem ci ki ak café bu tang rek lu bari ngay am voilà ñëw jaxase ba lépp jaxasoo su ko defee ñu ñam assaisonnement bi ku mu neex nga def ci sa poivre mais man def ma ci poivre bëggoon naa ci raay tuuti cumin rek bàyyi ko mu gundas gunduse ah, ma ngoog ne ni ma tiitalaat ci tuuti rek ci zay zaytuun bi mu euh, huile d'olive bi gis ngeen ko noonu même lii rek salaat la nii lii rek dafa neex <laughs> kii rek sa cornetu shawarma ba nga ñaar ko ci amna ñu may laaj tamit macha allah ne ma ndax dina defar shawarma amna shawarma yu ma jotoon defar ci page yu euh, suñu page saveur planétaire xamna ko bu baax vidéo yu njëkk yi mais inshallah du tee dinañ defarat ci wéru koor gi faaw ñu wañaar yo fi wañaar ko ba muy xolé benn place voilà gis ngeen nii de yóbbu yaay payang ni commencé né légui dañuy ñëw nak jël suñu ki farce bi dal di ko duggal ndank parce que dañuy bëgg di yegg yi ñu yëy air bi yi fi nekk ak ñoom yóbbu yaay dañuy bëgg di ko yëy di ko daj macha allah gis ma la mbokk yi gis ngeen ko ni tàllal nañ ko ci suñu plateau bi dugg ni ci four bi macha allah gis ngeen ko ni ñu ko tegee dañu ñëw nu mu ñu neex ñu tëjee ko mun nañ ko tëj indi ko ni mu nekk triangle comme mun nañ ko tëj ni mu nekk rectangle voilà nu mu ñu neex rek mën nañ ko ko tëjee incha allah aywa ñu ñëw tëj ko léegi soxlawul ñuy diw dara ci kii bi pour mu siil ko incha allah balaa ñu koy leen ni yii dañ ko cornet <laughs> ni ñuy cornetee caaf dañu cornet yële xanaa jommi ngeen <laughs> macha allah gis nga lii suñu jaune def la ñu batti nii pour badigeonner ko nii ci kaw mu may ko couleur bu rafet ku amul pinceau mun nga jël sa baaraam waala ni ko nii rek raay raayee ko ba yëpp daj préheat nañ suñu oven four bi taal nañ ko may nañ ko benn 360 incha allah après dañ ko ci naan teel ci biir waaw bàyyi leen ñuy si gundus gundus di jàpp forme benn quinze minutes bu neexee yàlla ñu daal di génne. amoo ah, ngoog léegi moom mi ngi ñëw ñu ne ko dabaj ci biir four bi incha allah may ko benn 15 minutes ci biir. mu gundus gundusee tuuti aywa ah, très bien <laughs> macha allah mbokk yi gis ngeen ko nii suñu yóbbu yaaba yaa ngi ne gis nga bi la ñu cornetoon comme cornetu caaf yi macha allah gis ngeen leen ni ñi ngi ni génn am solo ba bëgg a dee ci biir four bi lii nag li may conseillé mooy da nga koy lekk à chaud ne doon ñu tàll leen bañ na ñareet fële ci suñu assiette yi voilà di wax rek ne que sama doomu bàjjan nday mbayang jànku boroom euh, nday mbayang jànku boroom euh, karamo couture nee naa la sama ñaw boo ma ko yónnee <laughs> sama ñaw boo ma ko yónnee fii laa ñëwaat saveur planétaire ne leen doom bàjjen bu dul joxe sagaru njaam la mu leer naññ ci bopp àdduna bi yépp sa kasama yi ñi ñëw di ñawlu si yow xam ne doo joxe sagaru njaam waaw moom laa doon yekkalte ak sama doom ju baax ñu naan ko Madina am macha allah di leen wax ne jël leen seen doomu tàndar ma teg ci wet gi rek kafe bu tàng wàcce ko aywa salaamaaleykum xàppi ndogu Mariétou na rees jam video vidéo complète yaa ngi ci aywa macha allah allah mbokk yi mi ngi ni paré nañ di len wax rek nek euh, suñu épinard yeeg yubiya bay ñu boole won ak ñom seen jaay tomate fraîche ak ñom soble ak ñom yubiya bay neewon dout de nga maam ci bir pat bi mi ngi ni japp forme dégg jam donc comme nima len ko waxé won ak ci ben gi inshallah allah fas sama dom ju baax Madina an diko ñaanal yalla xewal yu baree ak borom kër gu ko antan yeerum ko yir ko macha allah njaboot ju barke diko ñaanal ñepp nak waaw ak te sama doomu bàjjen borom karoma couture eh, nday mbayang ko doomu bàjjen bi nga xam ne di joxe mukk sagaru njam fu ñu tourné mu ne maa ko war a jox sagar man de <laughs> jommi naa xanaa waa saveur àtte ñu ku war a joxe sagar diggante doomu ñu jaay ak doomi bàjjen aywa bismillah mbokk yi vidéo complète yaa ngi ci youtube bi di leen wax ne xàppi ndogu aywa salaamaaleykum dóor sa tàndarma ci wet gi dégg nga maam teg ndànk sa taasu café wala tee noo ko bëggee rek di guux muy wàcc aywa salaamaaleykum Marietou